mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax a baax di gërëm El Hadji Modou Diouf euh, ci régie bi euh, Abdou Top Ablaye Diallo ñu ngi leen di gërëm bu baax ci jàppale bi di nuyu waa solution TV solution info TV Sandiogu son yi bu sukka maa jigéen. Assane Mbesere bu maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar ñëpp di leen nuyu ajaratu bét yi ñi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm bu baax ci ni ñu àndee ak ñun tey nag euh, ñi ñëw ci actualité comme ni ñu ko tàmmee waaye actualité bi ñu dab mooy euh, Ousmane Sonko ca kanamu tribunal bu dakaar maanaam li naan dóor dóoraat maanaam dóoroon na leen ca Ziguinchor ñu weddi ko tey jii daan na leen jëlu buñ mënta miim loolu nag mooy li am mooy nan ko dellowaat ci liste électorale yi saba si fay <coughs> waxoon na ko ca jigéen sor ñu tappale dem ca cour suprême cour suprême daw responsabilité am jël ko jox tribunal bu Dakar tribunal bu dakaar joxaat saba si fay dëgg looloo tax tey jii ndam li ñuy wax ca tribunal bu dakaar du ndamal tribunal bu dakaar ndamal saba si fay la ndaxte bu doon saba Sabassy fay dafa jël dogal tey jii beneen juge ñëw déjuger ko te man am na ñu ma ci jotoon a waxtaanal ñoo xam ne dama leen a xam keroog euh, talaata bi ñu waxee ma ni leen man gowma alxamis juge bi weddi Sabassy Faye parce que loolu ci wàllu yoon li muy am bariwul maanaam juge boo xam ne yéen ñaara bokk li ngeen di liggéey yéen ñaara tolloo dayoo muy juge ngay juge nga déjuger sa moromu juge parce que juge bi lu tax du ko mën a def mooy moom bëggul ëllëg ku ko def maanaam loolu gàcce la ci juge loolu da justice bi tey jii dafa ragg deram mais aussi sàmbu honneur am loolu da ñu bari ñu doon xalaat naan Sabassy Faye li mu jugé mën nañ ko dindi même bi ñu demee cour suprême cour suprême dafa am problème pour àtte ko parce que dadul élégance dadul ngor dadul ngar mi sa moroomu juge di sa nawle àtte dara ba pare nga ñëw déjugé ko parce que bu nee cour suprême moo ëpp dayoo. mais ki ci Dakar ak ki ci Ziguinchor ñoom ñoo tolloo dayoo kon tey jii ka nekk ci Ziguinchor ki ci Dakar man daraja la ko ëpp ba Sabassy Faye mën a àtte ñu dindi ko loolu taxoon na ma amoon njort bu rafet ci ni tey nu mu mënta demee mën na ci am ndam te ndam loolu Ousmane ko am bettul sax ñi bokk ci nguur gi korog bi àtte bi jeexee Ciré Clédor li wax ba pare. après maître El Hadj Diouf wax da ngay nii déglu waxu maître El jouf Diouf te moom bokk na ci ñi Macky Sall war a maytu waaw man dama koy wax moom ma jàmbal ay seex mu war na leen maytu parce que gàcce gi yëpp nguur gi di am mais ñu koy yóbbee baadoo nag bu jibee gàcce fekk taa bi wëcce du am jàmm ji nga des fois nit il faut que ngay génn par la grande porte di maytu yenn yi. bari na ay kilifa yi sànq ci àddina yenn di ñoo leen sànq ji nga bi at bi jeexee dama dégg maître El Hadj mu ne mooy avocat wu état bi te li kenn sax mënta nangu mooy benn avocat boo xam ne dossier bu nu teg pour Ousmane Sonko maître El Hadj Diouf dugg na ci li jëm ci Mamour Diallo El Hadj Diouf li jëm ci Adji Sarr El li jëm ci Mame Mbaye Niang El li jëm ci. inscription liste électorale yi El jouf Diouf même El Hadj Diouf mii tey jii man gëm naa dafa ëppal mais moom sax ci ngor waroon na maytu dossier bu ñu tudd Ousmane Sonko mu ciy dugg waaye nag comme moom day wax ba dugal boppam dama mës dégg mu togg ak Papa Ngandiaye waxuma émission bu mujj de moom maître El Hadj Diouf mii bi mujj dafa ne avocat la liggéeyam lay def day défendre client am mais amul problème personnel ak kii di Ousmane Sonko mais avant bii. avant ñi jàpp Ousmane Sonko moom dafa ne problème personnel la règlement de compte personnel te ci plateau Papa Ngañ la ko waxee kon moom nekkatul ci mbiri avocat moom dafa am un problème personnel ak Ousmane Sonko léegi nag ñoom Macky Sall di ko may opportunité mu koy régler di nga Macky sàll ci boppam man tey amul lu may wax kenn ñaari weer dese la fi da ngay génn par la grande porte rafet ci pour ëllëg nettali ba mën a rafet maytu ay El Hadj ñoo xam ne seen problème personnel El Hadj gëmul Adji Sarr. El Hadj gëmul Mame Mbaye Niang El Hadj gëmul Macky Sall El Hadj Diouf problème personnel la am état bi nag di ko ci dimbali mu koy réglé léegi nag sol mbubbu avocat am bu ñu waxee mu ne damay defan sama client parce que korog bi mbir mi jeexee dafa ne même alxamis man foofu la sama njortu ñaawee dama ne talaata bu doon ni décision bi favorable na nguur gi mun na am juge bi da koy dóor mu daanu mais lu tax ñuy xaar ba jeudi. am na lu xew lu ñuy waxul te am na lu ñuy waajal pour jeudi mais bi ma dégloo El Hadj Diouf laa xam lan moo nar a xew jeudi ma am ci xeli parce dafa ne ak lu mën a xew jeudi maanaam juge bu ndaw bi mënul àtte lu ëpp dayo juge bu mag bi te cour suprême àtte na ko ba noppi est-ce que xala cour suprême fa la mbir ma ne bi mu waxee loolu ma ne kon yaakaarul ni ci jeudi bi moom maître El Hadj Diouf day am ndam ma ni man yaakaarul ni jeudi bi. maître El Hadj Diouf day am ndam la fait que mu mën a wax ni jeudi lu mën a xew rek moom du tee moom du mën a bokk parce que cour suprême li kutam maanaam ñoom seen lépp tey jii dañ ko wékk ci cour suprême léegi nag Dakar ak Ziguinchor nu mu soree ñu lay duma di la duma di la duma diggante ndakaar ak Ziguinchor ba tey jii yow duma yooyu mënoo kaa nangu bu yàggee nag li mooy li wolof fi doon wax naan baadoo la xamul yàlla dañ koy njoow mi njoowaan dossier bi ñu na dégg naa tey ñu ne dañuy def pourvoi en cassation mais pourvoi bi ñuy def jaratu ko c'est-à-dire il faut que ñu woo leen wax leen dëgg di nga réew mi El Hadj moomu ko Macky Sall moomu ko ma Madiambal moomu ko keneen ak keneen moomu ko te xanaa juge bi tey sax Madiambal du wax ni juge wu Pastef la ki nekk ci Dakar parce que ñoom ñi doon wax naan Dakar lañ ko war a jugé tey jii lii dafa jox dëgg kii di ay Aïssatou Diallo Ba bi nekk ci Cour tey dogal da ko jox dëgg. parce que ñu juger lenn ci Karim Wade mu ñëw en tant que juge ñu naan ko weddi waatal sa bopp la nga defoon ci Karim Wade nga weddi ko tey ji defaat leneen tey ji la Aïssatou Diallo Ba gëmoon moom la juge Thione bii gëm kon tey jii ñëpp xam nañ fi dëgg féete ñun nag lu tax ñu mën a nekk à l'aise pour mën a wax ci mbiri Ousmane Sonko bi mooy danoo bokkoon ci ñi jàppoon ni ak lu mu mën a metti Ousmane Sonko warul gedd yoon Ousmane Sonko warul bu ko yoon wooye mënu du dem na dem lu ko yoon may mu jël seetlu woo leen leen Ousmane Sonko fu ko yoon musa woo mu dem day am ndam ci àtte xoolal mbir Mame Mbaye ci àtte première instance bi ak juge yaa xam kayta Ousmane Sonko bu mu demee deux mois ko dóor yàqul dara ci éligibilité tey jii gëmoon naa ni sax ci biir Adji Sarr bu doon ni dem na sax corruption de la jeunesse amul juge bi jàkkaarloog moom di ko ci atte parce que bu viol amul lii di menace de amul kenn mënatu fa teg dara parce que nag am na ay juges yoo xam ne day di nu ay juge carrière xam na ñu bari dan naan ju ab juge bu tiimee ab dossier carrière am lay njëkk a xalaat waa am na ñuy xalaatee noonu. mais am na ñoo xam ne ñi ngi xalaat yàlla mel na sabasi xalaat yonente bi xalaat ni ñoom danoo am serment mooy danoo war a àtte ci dëgg àtte ci yoon loolu am na ci réew mi léegi nag tappalekat yi wax ne léegi mënuñu ko jox turam mënul dugg ci liste mënuñu ko jox parrainage damaa déglu Ababacar Fall bu Gradec bi may ñëw mu ne article 47 bu code électoral bi may na ñi nekk mandataire Ousmane Sonko bis bu nu jotee décision wu juge bi tey bis bu nu ko jotee ñu dem ci ministère de l'intérieur mooy waa DG wala yooyu wala waa daaf direction de l'automatisation du fichier ñu dugalaat Ousmane Sonko ci fichier électoral bi jox ay fiches su parrainage am soit mu doon parrainage des élus mooy optionnel bi wala parrainage citoyen bu mu ci mën ci doon balaa vingt 26. tey jii nag administration bi ñoo war a ragg seen der mooy waa DGE waa Sénat waa ñeneen ak ñeneen parce que nag damay faral di fàttali kàddu yi sëñ Abdou Lahad doon wax bari pexe jub moo ko gën. fi mu ne nii mbir mi nekkatul ay pexe pexe bu mu mënti teg ci àddina suñu borom ne ànduma ci pexe bu mu mënti def ci àddina suñu borom ne ànduma ci depuis ñiy dàq Ousmane Sonko ci impôt domaine mi nekk député di dem élection présidentielle ñu dindi ay listam ci liste député Yewwi Askan Wi mu dem élection di diirante ak ñoom mbagg mbir Adji Sarr fan la mujj mooy ci ay corruption de la jeunesse yu kenn xamul. tey jii mbir mii ñu jàppoon ni Ousmane Sonko tey jii nit ñi fàtte nañ ko tas nañu parteem mais tey jii la fi waa ji gën a ne xam lan la waa Pastef yi di wax nee na nekkate ex Pastef moo dàq Pastef ah loolu nag mooy dëggal nit yë njëmbatu yàlla ku koy yëngal yaa ngi koy dëgëral njëmbatu yàlla koy yëngal yaa ngi koy dëgëral te taxaw ci dëgg rek moo wóor fii leneen loolu la wax ci àddina lu lul ni nit dafa nekk ci dëgg bu neexee mu nekk ci dëgg bu naqadee. mu nekk ci dëgg parce que dëgg mooy loo xam ne du toxu te dëgg mooy xam loo xam ne du mujj te dëgg alalu suñu boroom la tey ji man bokkoon naa ci ñi gëm ni Ousmane Sonko dafa waroon dem dialogue mais histoire ak temps bi day dem ba nga jàpp ni Ousmane Sonko décision yi mu doon jël yu gën la ci moom parce que lépp loola fen di may boo waxee dëgg am ko kon tey Ousmane Sonko jàngal nañu dëgg jàngal nañu njub. jàngal nañu gëm sa bopp jàngal nañu wóolu yàlla parce que daan na ko wax wóolu yàlla rek mu wóor tey jii nag li fi des mooy nan delloowaat turam ci liste yi bu dee nekk dind woon nañ ko ci bàyyi ko mu wuti parrainage dem ci conseil constitutionnel li jëm ci wàllu caution bi ñu nangul ko ko mu nekk candidat Macky Sall rafet ci ñëpp rafet ci bu dul loolu day gën a ñaaw ñaaw la ba noppi de mais bu dul loolu day gën a ñaaw. parce que nit koo xam ne teg nga ko lu ne mooy li may wax rek mooy Ousmane Sonko symbole la ci wàllu résistance baat boobu mu daan wax résistance mais Ousmane Sonko symbole la ci wàllu résistance parce que lii liñ ci jàng mooy ñun suñu réew ñun amuñu endurance ñun danoo gaaw xàddi ñun sénégalais li sengoor doon wax sénégalais day saxaar waaye du tàkk. li mu dugg bu méttee rek mu rocceeku nekk ci leneen mais Ousmane sonk dafa ñëw mënuñu pourtant mbir mi mën na tàmbalee métti waaye mën na mujjee neex loo dama ni symbole la ci wàllu résistance waaw parce que fii li ñuy wax naan la travail il est sacré mooy da ngay liggéey sa carrière yépp nga liggéey ko mais liggéey bi yëpp daa am ñooy liggéeyal mooy sa njaboot sa lépp ñu xëy mu mën a sacrifier liggéey boobu pour wax dëgg te yàlla tax ñu xañ ko liggéeyam mu wóolu yàlla dem na askan wi jox leen ma liggéey askan ni ko Macky dàq na la waaye ñun ñoo lay embauché dugal ko assemblée nationale yóbbu ko élection jox ko yaakaar boobaa tey jii lépp lu nguur gi xam ci mbiri caay-caay rek teg nañ ko ci kanamu Ousmane Sonko. mais pakk pakk bu ñu ko tegal mu jéggi ko sànq wax naa ko mbiri Adji Sarr mbiri Mamour Diallo mbiri élection yi dem nañ ba jiñ ko ab entreprise terroriste dem nañ ba jiñ ko ay xaalisu Qatar ñoom ma jàmbal ñoom député boobu nu mu tuddati mais aussi ñoom Cheikh Yérim lu ne ñu jéem ko dem ba APR gi xeex ak moom ak waa Benno politiquement amatuñu ay moyens politiques pour xeex ak moom ñu utiliser les armes non conventionnelles parce que xeexu politique lu ñu nangu la PS PDS graaw après day jeex looloo tax ñu doon wax naan politique il ne faut jamais dire jamais lii mënta ne mënuñu ko wax ci politique mais ñi fare ci nguur gi yematuñu ci politique jël appareil yu état bu ñu waxee appareil yu état. mooy état mooy ñun mooy lu ñu bokk ñun ñëpp mooy justice bi état mooy lii di administration bi lépp ñu ngar daajoo ko aakimoo ko di ko xeexee benn nit dem ba léegi nekkatul mbiri politique mais dañ naan état même boo xoolee charge yi ñuy teg ci kawam état lañuy wax dem ba ngemb ay journaliste mooy presse bi ñëpp waroon a bokk mu nekk quatrième pouvoir am presse yoo xam ne sax dañuy taxaw nga xam ne ñii waa jii la ñuy xeex yaa ngi gis waa ji la xeex maanaam ñu dem ba xeex bi amatuñ ci ngor amatuñ ci ngar mi amatuñ ci sax sago waa ji wóolu yàlla rek ak sénégalais yi barricade nañ ko këram tëj nañu vitre otom amul dossier buñ ko ibbilul ci àddina ma mbay Niang dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dossier wu kii nu mu tudd Frédéric Nappel mooy policier xamul gendarme boobu maanaam lu dul plainte jinne teg nañ ko ko dem nañ ba procureur ñëw toog jàkkaarloog presse bi ma ne mbette victime du net la mu waxoon fee waxoon fee ñu dagg kole di coupé collé naan moo waxoon lii moo waxoon lee dem ba waxatuma la jëmmam waaye nit ku ko jege sax wala nga bokk parteem wala ñu jàpp ni amal nga ko njariñ ñu faagaagal la tëj la ci kaso bi bu la mënul tëj ci kaso bi yàqal la sa liggéey ñoom Amidia man gis naa ku ñu woo ci yoon xam la lañ ko wooyee dan na ko yow magi Pastef nga bokk dégg naa bu magi Pastef di réunion xar mi ak nag wan fay re yaa koy jënd moom bi ñu ko <laughs> billaahi waajee ma ko nettali nee na moom enquête bi loolu lañ ko doon laaj xanaa nag lu ne dof dof dof dof bu fukki nit ñëwee daje ak yow mais nga mën leen sax reyal ab ginaar mais ñu naan ko non dox nga bokk ci ñiy financé projet bi parce que bu nit ñi lii yaay jënd lu ñuy lekk xanaa ñun fii ñuy defee émission tax dinañ jënd ndox mu nu naan ku dajale ay nit kay jox leen lu naan pour walla nii dafa dem ba ñu dugal ci xeex bi ñàkk sago boo xam ne tey jii moo leen yóbbee gàcce gi yëpp parce que benn jamono Ousmane Sonko dem na ak ñoom xol. mais dafa dem ba ci ak mu jiital xel mi loolu demal la Ousmane Sonko ci kaso bi la gën a dangereux parce que kaso bi xel mi lay utiliser mais tey ji xeexu xel bi mu indi li ñoom ñi demee xol te tey ji ba mbëkk miir bi taxaw dégg naa ñi bokk ci ñoom ñu jox kàddu mais da ngay sentir ni nekkuñu sa à pour di ci wax parce que danoo demoon ba gëm ni ñoom ñoo moom justice ñoom moom administration te li leen dese ci nguur gi ban juge mooy xaru deux mois dese fi Macky Sall nekkatul candidat seen avenir nekkatul ci loxo Macky Sall lu tax ñuy xaru kan moo leen ko jaral Amadou Ba mi di wër dëkk bi daa xel booy lebal da ngay lebal koo xam ne ëllëg mën na fay mais Amadou Ba lu mu li mu wane nii lan la mën a lii léegi réew mi mën a tàbbi ci loxo Pastef wala mu tàbbi ci opposition ëllëg ku fi defoon wala nga waxoon si ñu tegalaat la wax ji Pape Alé li muy wax rek Pape Alé nee na man sama liste laa yor ñi fi ne di def naka su dul noonu. mooy enregistré ak di bind rek bu ëllëgee ñu lañ yéen ngi nii parce que Sénégal nag nit day def lu na weng ci administration wala ci justice xëy mu mel na du woon moom xam nga ni korog la xew ca tribunal ay pancarte yoo xam ne kenn mësu ko gis ñu naan affiché woon nañ ko kër Ousmane ka affiché woon ne ni kërëb kërëb ngay après yow ci nga posé question kii def lii lan la ci jublu parce que moom bu dee ni ab administration li liggéey soit policier la wala gendarme la wala ci justice bi mais kooku mu neex dañ koy fay weer mu nax dañ koy fer lan moo ko jaral lool parce que moom daf ci am mbiri politique yoo xam ne seen yoon nekk ci mais Sénégal dañoo dem ba ñu politiser l'espace maanaam judiciarisation de l'espace politique maanaam mu mel dem ba politiciens yi léegi politique ñu mais léegi dañoo délégué seen politique ñeneen ñoo xam ne tey jii ñoom seen yoon warul woon nekk ci son ko bu defee lu dul dëgg ñu teg ko ko seen yoon warul nekk ci Macky Sall. seen yoon warul nekk ci ma sàmba wala ma dem ba mais mu dem ba li politiciens yi ñemewul daa am ñu leen koy defal parce que politiciens yi ñëpp xam nañ leen ak seeni tappale léegi nag waa jooju ñu jël loolu lépp teg ci kawam léegi yamatuñ di ko tuumaal ci réew mi mais dañ koy tuumaal ba bitim réew tuuma yoo xam ne montagne glace la montagne glace li naaj bi gën a tàng mi ngi seey ay feni kase la xaalisu Qatar bi xaalisu Doha bi xaalisu lii xaalisu lii benn fan la am ñaari fan seey parce que du dëgg dem bañ ciy tuubul Touba goo xam ne tey jii Touba bi ñuy wax autonomie ci wàllu financière exemple ci wàllu mën sa bopp gëm sa bopp Touba layam yem. ba sëñ Modou Moustapha Mbacké di jël raay bi jëmale ko Touba ku ko jàppale fanancement yi fu mu jógee woon di murid yi noo dajale seen xaalis jox sëñ bi. te jumaay tubaa ji bokk ci jumaa yi gën a rëy ci réew mi waxuma la jumaa ji waaye ji Jinaan ni xaalisu kan la xaalisu murid yi lépp lu xew ci réew mi corona wala leneen xalifa général de mourides day dajale xaalisu murid yi def ci tubaa ñooy financé seen bopp Touba waxuma la xaalisu Qatar wala Doha mais Touba xaalisu taalibe yi li nuy jël di ko delluwaat taalibe yi ay kàcckat taxaw fee naan ay islaam bu bees bu nekk Sénégal islam local ay xaalis bu jóge lii fa lañ ko lii pour l'électorat mouride loolu mooy dem ba ñàkk argument maanaam xeex boo xam ne da ngay dem ba benn jamono ñoom da ngay sentir ni ñii amatul sago xamatul fi ñuy téye parce que mënoon nañ jël exemple feneen mais jël exemple ci Touba mooy cuune ci wàllu financement maanaam loolu moom mooy cuune dem ba sax ñuy roy ci Touba yeneen këru diine yi maanaam bu ñu soxlaa ne taalibe yi jug leen ba loolu sax ñu bari di ko roy ci Touba man fa ma bokk bu ñu wootee bu ma amee junni yónnee fa parce que loolu dañ ko jàngee ci Touba te loolu lépp li ko indi mooy xeex bi ñuy xeex Ousmane ko ci amuñu si sago tas na nu administration bi tas na nañu justice bi tas nañu diine ji tas nañu lépp pour xeex ak benn nit te mënuñu am ndam bu nu amoon ay mbokk nag dañ naan leen dëpp leen waa ji. du ñooñu du xalifa waa ji du Karim waa ji sunu borom ànd na ak moom borom ànd na moom léegi lu tax ma évoqué loolu lépp ci taxawaayu Ousmane sonk tey jii bu ko neexoon dem dialogue bu ko neexoon dem dil bu ko neexoon dem waxtaani bu ko neexoon dem def ay protocole parce que gis nañ fi protocole de Doha protocole de Minui de Conakry protocole de Rebeuss ci dossier politique bu fi mës a am ci réew mi protocole moo koy lijjanti ba doon nañ fi wax protocole de Massalikul Jinaan maanaam dañuy egg fenn ñu ne nan ko waxtaanee ma Ousmane fa mu toogoon la toog loolu nag moo jaaxal Macky Sall waa ji malgré li mu koy teg mais waa ji dafa mel ni xeer wa ca ngor duusu géej gi mënul dara ci moom waaye taw bi li muy bari bari mënul ci dara ci moom mais mais mais Modou yaa ngi mooy tooñ borom mbaxane moom bu ko fi tegati. war ma ko dama xool ko kooku seetloo ma du ko tudd ah, ah ki waajaa ngi nii ah, li waaye gars yi doon wax naan anoon yi rus nan bu noonu ah, maanaam anoon yi rus nan mi ngi nii ñii mooy loolu dindi ko du mu sa tudd demal <laughs> ñu ñu jàll ci leneen léegi nag Ousmane Sonko mi naan terroriste rebelle lu la neex nañ ku ko tuddee salafiste bandi maanaam Ousmane Sonko viol ba vol maanaam amul luñ ko jiiñu de Dakar à Ziguinchor lu ne teg nañ ko ko mais fu mu sëgg ak ñoom bëre gars yi gàddu seen dàll dem lii nag luñ ci war a jàngee boo gisee ma jël exemple mooy résistance di nga àddina lu yomb baaxul àddina yàcc baaxul maanaam Ousmane Sonko jàngal nañ ñi boo nekkee ci dëgg toog fa gëm li nga gëm nekk ci li nga ne ndar xëyul sotti parce que gars yi muy xeexal tey jii boo dégloo ma jambal déggu maître El Hadj li ñuy wax ñoom mooy forclusion waxatul ni am na dëgg wala amul dëgg de ji ñoom nekkatun ci yooyu xamu ci lan la ne non forclos na parce que délai joxoon pour élection yi naa ji jeex na léegi ñu ngi dugg ci yeneen mais mu neex leen. mu naqadi leen Ousmane day bokk léegi nag bokk ci nii wala bokk ci nee léegi nag bokk ci nii moo gën ci ñëpp gën ci Macky gën ci ñëpp ñu rafet ci parce que nag réew mi dafa am taarix Senghor dafay toog ba jóge fi jox Abdou Diouf mu rafet Ablaye Wade ak Abdou Diouf seq na lu ne ci àddina waaye mujjanteel ga dafa rafet Macky Sall ak lay Wade passation de service ba ji nga Abdou Diouf dafa dafa jël nguur bi nga bi muy pare Abdoulaye Wade dafa jël nguur gi yebal ko yónni ko lépp rafet pourtant seq na lu ne ci politique Macky ak Laye Wade bi nu defee passation Abdoulaye Wade dafa ne ko dékkal sa loxo ma ñaanal la ne waa PDC jàppale leen ko Macky sàll nag mi ne demul élection tey jii da cee war a rafet ak ku war a jël réew mi ëllëg bu dee Ousmane Sonko la c'est bon bu dee ante Babacar c'est bon bu dee Bougane c'est bon bu dee keneen mais da ci war a rafet parce nag bu dee njabootam gi moo tax muy dugg ci li njabootam gi jaruñu ko parce que nag politique dañ daan gis ñaari parti jàkkaarloo mais làqatu ci ginnaaw justice wala administration lu yomb la lu yomb la pour di mën di faagaagal nit ñi parce que dem na ba ñi bokk ci nguur gi gëm ni ñoo moom yoon. da wax ak nit sax toog ak moom ci plateau ngeen werante sax mu a dama lay porter plainte de dañuy woo procureur de loolu nag moo ñuy yóbbu ci xale yi ci kaso bi waaye nan leen bàyyi ñu ñibbi jarga si ñu ne téye nañ ko jàpp nan ko bàyyi nañ ko parce que dañ na woon ñu posé na Ousmane Sonko te Ousmane Sonko porté wu ko te neen na jarga bokk ñu ñi ko gën a jege nga téye sept mois nit ci kaso bi. xëy di ko teewaat pour ay mbir yoo xam ne kenn xamul lu mu doon il faut ku ñu teey ci li ñuy def parce que ëllëg loolu lépp la mën na la ko fay ci politique te ñi bokk ci nguur gi ñoom danoo am intérêt pour booy génn man waxuma Macky Sall de waxuma doomam de ñooñ mën na rëccal seen bopp dem ca loolu Macky sàll mii dem ba ut liggéey bo maanaam moom ut na liggéey te jugee gu fi mooy waa ji bu paree da leen wan ginnaaw dem yoonam. lépp liy métti mun na dal ci militant yi kon fi kon militant mi ñoo war a wax ak seeni leader na leen baa leen booyi bu dul loolu ëllëg ku fayu ku falu ci ñun la koy fayu kon nan bàyyi doomu jàmbur yu ñu téye bu àttee laajee na leen àttee ku ci def ñu jàpp la ku ci liwul ñu bàyyi la mais tey ji téye gi leen téye dafa ëpp après neuf mois de prison da ngay gis koo xam dañ koy bàyyi mais buñ ko bàyyee pour lan kon loolu nañ ci jug te li ñu war a wax ci réew mi dafa bari da ngay dégg ñu ni la affaire Moussa jóg fu lay tëjee pour trois minutes mu jeex bëgguma ci woon sax wax ñu bari na naan non Moussa wax na dëgg wala Moussa waxul dëgg mais ñun si débat yi ci sunu ressource extractive yi sunu gànjar dañ ci war a wax. parce que ñun mënuñu toog ci or ba nopp di wër or ñun suñu réew yi danoo ñàkk nit ñi danoo ndóol amuñu dara da ngay gis waxambaane boo ko waroon samp kër ba tey ji mu ngi kër baayam nga gis koo xam ne danga koy dajeeg moom mu tàllal la loxo di ngay gis koo xam ne tey jii xoola dana danaa la man liggéey lu mu am rek jël parce que ñàkk pexe te réew moo xam ne dana géej gi mën na dundal waa réew mi ñu ne la or mi ngi fi ñu ne la pétrole mi ngi fi ñu ne la mi ngi fi tey jii ñi nekkoon ci toolu jogo yëpp nekk ci lomp li yëpp ñàkk nañ seen tool yi parce que fa tool yi diju suuf sa daa barkeel tubaab yi ñëw jël ko ñu jox leen ko ba ci ICS bi ak phosphate bi ak phosphate bu ndendoor yooyu yëpp dafa am ci réew mi mais yooyu yëpp askan wi gisuñu ko ñun mënuñu riche ba pare mënuñu toog ci richesse boppare pare lool loolu te débat bi maître Moussa Diop ibbi ñu bëri ñu naan li mu wax waxu ko na indi preuve ne lii mais pour une fois. jamaa am na wala amul ñun lu ñu ciy wax mais pétrole bi bi muy doog génn fii ci réew mi lan lañu doon wax mais fii la Mohamed Dionne génn naan ku waxal ci pétrole bi ñu ñu porte la plainte li ñuy wax amul gaz bi ni gaz bi ni mais dem nan ba jamono dëggal ni sunu réew mi xala am na dara te loolu mu ngi juddoo ci bu Ousmane Sonko ñëwee. gëmloo ni ñun suñu réew mii waratul tàllal loxo waa bitim réew ñun lu ñu am buñ ko jëfandikoo ci anam wu war ci transparence renégocier les contrats dix pour cent yi ñuy am ñu yokk ko bay am cinquante cinquante gagnant ku ne am lu mu gagné bu boobaa ñun li nekkee dinañ ci génn mais ñun li ëpp suñu alal day génn réew mi di dem bitim réew loolu c'est la réalité parce que ñun boo xoolee ñun suñu élite bi nu nu riche dafa ëpp. da ngay gis fonctionnaire bu nekk milliardaire gis ñoo xam ne li ñu yor ci alal doo xam fu mu toll ci àddina mais askan wi moom pauvre ci réew moo xam ne tey jii gaz sax dañ ko doon di utiliser pétrole lépp nekk suñu loxo kon débat bi maître Moussa Diop ibbi débat la boo xam ne bu ñu ko yemalee rek ci ni wax na dëgg wala waxul dëgg daf ñu war a dimbali pour ñu xalaat parce que man li may bañ naan Moussa Diop wax na dëgg wala waxul dëgg ci ni am nañ jamaa wala amuñu ko. mooy damay bañ ñu dem ba jamono jamono dox dëgg Moussa Diop mën na ne de maanaam ñu dem ba jamono ñu ne pourtant Moussa dafa juumoon ci lii de naka la jamaa bi ñu ngoon fii parce que ñun fii si suñu réew lu bari dañu koy nëbb mais bi Ousmane ko ñëwee taal xel yi Bougane gis nañ mu ciy wax gis nañ keneen ak keneen léegi xel yi parce que débat politique bi lan la woon nan dem élection nan xool fiche bi kii may falu kii di falu ñi def ay deal politique mais bi gars yi ñëwee. ci ngay gis léegi ab opposant mën a jóg di wax ci li ñëpp bokk kon ab débat la ñu ibbi ñi ci war a enquête nañ ci enquête mais li ci war nañ ci li léegi nag euh, jeex na li ñuy ñaawul rek mooy Sénégal dañuy jiiñ nit sàcc léegi ñu bàyyi fa sàcc bi ki yuuxu sàcc lañuy dem jàpp mais ki ne moo sàcc moom day sañ a nu ko neex loolu nag dinañ ci dellu siwaat gën ci waxtaan tey programme woon nañ ci lu bari ci mbiru Moussa Diop mais malheureusement tey wala heureusement on peut dire heureusement mbiri Sonko yi dab ñu ñu ne lu faut ñu gël parce que actualité mooy dominé di gërëm baax El Hadj Modou Diouf euh, Ablaye Top di leen ñaanal jàmm di jéggalu ñëpp di baalu ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon euh, beneen alxamis rek ci beneen 30 minutes chrono ci euh, solution info TV jërë ngeen jëf.